salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi bu seen site internet bi di 24actu point com ñu desuwaat ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni moo di jotaay koor jotaay koor nag bu ñu ko waxee di yëngatu lépp li nga xamante ni nekk jëm na ci wàllu diine ak wàllu lislaam ci la ñuy yëngu bu baax a baax rawatina di ci invité yi nga xamante ni ñoo di ay jàngkat ñu dalal leen ci ñu feeñal seen yéene bu baax a baax bi jàll nag ñu invité ki nga xamante ni moo di sëñ Seexuna Mbàcc tey nag suñu gan tey nekk ki nga xamante ni moo di sëriñ Maam Mor mu nekk koo xamante ni jàngkatu xasida bu mag la bu ñëpp ràññee rawatina ci diwaanu Touba bi nga xamante ne fi la féetee xam naa ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo suñu maam Mor maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Astou Sylla mhm. maa lay nuyu bu baax. jërëjëf Maam Mor xam naa ñu bàyyi soxna maam Fatou Kébé mi nga xamante ni moom la ñu bokkal plateau bi moom tamit mu nuyoo soxna maam Fatou maa lay nuyu. waaw salaamaaleykum soxna Souma lay fay wax na salaamaaleykum mbokk yi seetaan 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jotaay koor jotaay koor nag ñu ci ànd ñi nga xam ne ñoo di ñi nga xam ne ñooy jànkati xasida yi bi la yoon nag ñu daal dalal ki nga xam ne moo di sëñ Mamor Kayre ñu daal fas yéene ànd ak moom nag lépp loo xam ne day daal dundal xasida soxna jërëjëf soxna Mame Fatou Kébé ci nuyoo bu am solo boobu xam naa jotaay bi nag daal dinañ ci ànd ak ki nga xamante ne moo di suñu xarit suñu lépp El Hadji Ousseynou moom xam naa dafa mel dafa xaw a boycotté tuuti Euh, xam naa ñu ñëw ci ci commencé ci question yi ki nga xamante ne moo di sëñ Mamour Kairé xam naa nag fi ñu commencé mooy euh, tey jii bu ñu bëggoon a xam euh, sëñ Mamour Kairé lan nga ñuy wax. jërëjëf soxna su ma ngi lay siyaare bu baax di siyaare mboolem koo xam ne yaa ngi siifur site bi ñaanal sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi ak njaboot Seex Xaadim yëpp. Mhm. di seen kilifa ak nga xam ne yéen animé émission bi. Mhm. wax dëgg yàlla sëriñ Mamour taalibe la bu dëkk Touba. Mhm. juddoo fi fi. maamam bokkoon ci ñi toppoon sëñ Touba muy sëñ Mor Kéré mi nga xam ne sëñ Touba ko digaloon mu koy woy boole di ko liggéeyal. moo meññ waajuru sëñ Maam Mor. ñu dëkk Daaru Xudoos. kooku mooy sëñ Maam Mor xam naa balaa ñoo xuus ci question yi dëgg-dëgg sax xam naa nga dikkal ñu ci li nga xamante ne lenn rek ci loo xamante ni ci jot nga ciy jàng nga commencé ubbeel ñi ko ñu mën a xuuse bu baax a baax ci question yi. asubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman axtaytani mal xalbu ansa kullama mada min addururi maawta sullama axtaytani mal xalbu ansa kullama mada min addururi maawta sullama كافاني من مالو كفنات بما لخير زاخ كل من جات أكرمني بخلق ولا خلات ربي ولم يكن له كفنات ناجاني اللهم كريم السمات تناجيا به كفاني الكمات واجعلني أكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد الانشرم أسأل كونتي الخسيدة عارعة لعادة مفيدة أسأل كونتي الخسيدة عارعة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن كلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل الكلام mun ala xaarisil xurufi bima yafoo sanna min maxrufi linaasi min urufi xalli diraba aman kafaawusal xururi wannuba waliyu ya raxmaanu ya rahimu ya ayuba ya xayuumu ya mukrimi ya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 waaw jërëjëf si ci Mamour ci njàngum xasida mu am solo moomu sëñ Mamour ñu daal di bëgg a xam kañ nga dugg ci njàng mi. waaw sëñ Mamour de mi ngi dugg ci njàng mi bi muy nekk ci daara ji fii ci Daaru Xudos sunu waajur muy Serigne Bassirou danaa def guddi alxamis ak guddi laylul xadar guddi mel ni guddi gàmm moom daa jàngaloo li may wax xaw na diire tuuti ndax booba sëñ xaayi bi miy jàng booba ci daara ji la ne woon. da leen daan jàngaloo mais xasida leen daan jàngaloo wala da ko daan boole ak alxuraan. waaw booba xam ko boo jàngee alxuraan guddi alxames. Mhm. ak lu mel ni guddi gàmm guddi leen xadar moom daan neexal ñu toog di kuréel di jàng. Mhm. booba jamono yooyee Cheikh Abdoulaye Niang. Mhm. la nit ñi roy. Abdoulaye Seck mi génne borom baax. ak ko mel ni jàngkat yu mag yi fi jaar si Moussa wala ñeneen sëñ Youssou Ndaw wala mag ñi ñu daal mm-hmm. euh, boobu ay kuréel yu bari ngeen doonoon wala euh, taxu taxul woon ngeen bari. waaw booba dong yi nekk ci daal yi booba booba boobu ñoo daal jàng. Mm-hmm. booba xañ na yow yàlla moo tànnal ne dina la def bu yëkkati xasaay ndax boobu kàddu gu ràññeeku. Mm-hmm. waaw booba naka nga def nii ba dugg ci jàng mi. waaw xam nga bëgg-bëgg rek ndax nit ki loo bëgg ci dugg. kañ kan nga ci doon àndal. waaw ànd ci jàngkat ji moom sëriñ Xaadim ngéy la ma ñëpp xamee ci àdduna bi waaye njëlbeen booba booba sëriñ Xaadim demewoon nii comme ni mu demee woon booba dadaa def bu amee tur ñu foofu ci daara ji ñu ànd dem àndal jàppale ko boobu ko mel ni sëriñ Malick Fall ku mel ni ñi ma dëkkaleen jànkat yooyu rek ñoom ñoo daa ànd ak moom di ko jàppale ci xasaay bi kon bi nga nekkee ci njàng ba léegi daal Xaadim Géey nga mas a àndal ndaka jekk waaw Xaadim Gueye laa mos a àndal naka njëkk maanaam doom toppi jànkat Xaadim Gueye laa ko mos a def. Mhm. bi nga ci duggee léegi ñaata kaset nga ci génne. génne naa ci ñeenti kaset. ñeenti kaset jot na cee génn waaye ñu daal di bëgg a xam tamit sëñ Mamour ñu daal di gis ne jànkat xasida yëpp tamit da ngay gis ñu daal di wolofal sëñ Mamour ndax dina ci boole ay olofal. waaw olofal euh, li tax ñu koy def ñun suñu maam da ko daa def ndax daa waxam ne bu nu soree te di wolof te so te sopp ko nan ko ci woy ndax yónneen wolof yi ko. li ñuy sori sori. bu mm-hmm. dee wolof nañ ci woo yonante bi ndax woo yonante bi wolof ump ko. Mm-hmm. yàlla moo bind xaraab bind xajam xamal looxe xaraab ak looxe xajam ngeen gi yónnee. macha allah mm-hmm. léegi kan moo lay bindal wala yaa bindal sa bopp. waaw li déggul ma la sama maam dafa wax ne. Mm. ba ma jógee ci jëkk màkk laa namoon ak Madina ak saa ndekk boobu Mbàkke laa jëm. leeru Bàmba gee ma ñor di may dox di pempe bi yàlla moo ma ko woon. mi ngi ma booleeg moom ci aw ciy nelaw woon ma melaw yoneen boo ma selaw. Bàmba ma may man kayre may wone xar baax yoneen. yu waroon la góor yi kon lu yonente bi mas a def dinaa leen ko nettali te fekke moom kon kooku taalifkat la. Oh, ah, macha allah sëñ Mamour ñu gis na yow sëñ Xaadim gi nga doon roy est ce que mën xam exact lan moo la attiré woon ci sëñ Xaadim ba tax nga doon ànd ak moom. waaw amuluma ci attiré maanaam bëgg rek. ak mhm. maanaam bu dul dara yàlla dogal mu ràññeeku. Mhm. daa ñëw ci kër gi ñu bokk lu bari. moom muy ñëw ne ma day ñëw ci njàng mi ndax talent ak xaj na am na talent bu nekk ci yow boo xam ne. Mhm. boo doon ñëw ci yàgg bi di nga ko mën a a yàgg. waaw ñu wala ban xasida la. waaw moom la waaw jàpp nañ ne xasida boobu la mais tamit est ce que mën nga ñëw dikkal ci ndax dañu baaxoo rek jàngkat boo xamante ne invité nañ ko rek ñu laaj ko nga xamante ne mooy euh, mbooti xasida est ce que mi ngi ciy yëngatu bu baax maanaam euh, jëmmi jëmmi xasida bi mbooti ci nekk est ce que ñi ngi koy gëstu bu baax a baax waa xam nga ñun suñ kalaas gi moom ñi nga am lu ciy gëstu au mhm. moins ndax dul dara mhm. am na lu jàng tey li sëñ Tuubaa xam ne antal karim mu anal xadim dara dimu dama bokk ci fii kasanaay gi mhm. mooy diirub jamono damay tagg yonente bi kon sëriñ bi gis ñu ko ci saayir mhm. mais ñun ñoo koy mottali mission boobu fekk yaa ngi tàgg rek sëñ bi ngi nettali macha allah suñu maam Mor mais tamit ñu seetlu ne euh, boo xoolee est-ce que jàppoo ne tamit euh, am na njàng mu njàng mu njëkk ma ak njàng bi nga xamante ni jàngkat yi ñu ngi koy def léegi am na différence waa njàng njëkk ma ak njàng mu ñoo yem booy xool njàng mu léegi moo gën a wér moo gën a wow mhm. njàng mu njëkk ma mag ñi baat yu bari wax dëgg yàlla la waaye pas-pas ban ko leen defee xëy na nag pas-pas boobu ak pas-pas bii moom waroon na mm-hmm. boo xool ñu njëkk ñi moom booy xool pas-pas bi ñu aman ñu moo pas-pas bi parce que ñu baree bari li tax ñu dugg ci xasaayit xamuñu ko ndax dañuy gis ne tey am xaar yi ngi mel na ne naan dugg ci ngir loola kon nga jàpp ne ñu bari loolu waaye mm-hmm. bu fekkee di ci ëpp solo mooy lépp lu nit di def ak lu mu mën a doon. Mhm. bis ngi ñëw dootoo ko mën. Euh, dëgg la mais ma dama seetlu ne boo xoolee ña ñàng mu njëkk bi nga xamante ne doon nañ ko def mu gën a ëpp doole maanaam ci rythme bi ñu ko yëkkatee ak moment bi euh, ni jàngkat yi di yëkkatee. donte am na am na différence comme ni nga wax sànq. boobu moyen daa amul xam nga bu mhm. ay rajo amul yu bari amul. Mhm. maanaam nan dañ te boo tey jàngat yooyu daanaka nii jàng bi demee daaw demee. parce que mhm. boo jàngee bala nga jàngat doo xam kañ lay doon. te fii nii jamono yi sax comme yooyu ay weeri weer dañ ci nekk ak yu mel noonu. il faut bu fekkee lépp lu kàttan di def da ngay jourale maanaam mën a digal. faaw ngay calculer di ko def nang xam naa ñu jox sax maam Faty mu dikkaat ci question yi. waaw jërëjëf sëñ Mamour ma daal di bëgg xam tamit ndax sëñ Mamour eeru Xaadim Gueye bi nga xam ne moom la Xaadim Gueye la daan topp moom nga ñu wax ndax eeru Xaadim Gueye bi moom nga continuer di ko roy ni ba tey wala da ngaa yor sa eeru bopp. Xaadim Xaadim bu njëkk laa ko daa mais bi ma demee ba dernier moment. parce que li ñu naan doomu aadama sax su da nga war a yoon mm-hmm. ma jàpp ne war na ma mm-hmm. mm-hmm. doon na mën ba gis ko ci yow royal a laaj sax ndax yaa ngi gis maanaam ñeen xam ne yaa ngi gis ñu lay roy ba nga xam ne ñii nuru nañ la mm-hmm, yaa ngi koy gis baax waaw ñu daal gis ne tamit jàngkat yi léegi dañuy dégg ne jàngkat yi ndaw ñi buñ leen di déplacé wu dañuy laaj xaalis bu mag ba laaj avant sax bu dul loolu duñ duñ fa jóge lu waral lool waaw loolu sëñ Mourtala sëñ Tuubaa daana wax ne fuñ leen woo ngir yàlla ngeen wëj ngir yàlla waaye buñ leen wooyee ngir leneen parce que jàng jàng yi ngay wax nii mhm. déplacement bi ñay dajale di di programme yi jàng yi mhm. da ngay luyee ji sees luyee baas luyee lépp mhm. kon nit ki nga xam ne day ñëw di jàng si xasaay yi donte yàlla rek tax te muy ànd ak mbooloo te saa suñ fanaan ci baas bi suñu xëyee ay boroomi kër lan am na lu leen war léegi da ngay fanaane jàng ba asamaan set duñ la jox dara. bu boobaa lan ngay dépassé ak liggéey bi nan ngay mën a continuer pour mu continuer. Mhm. nan nga koy mën a téye ba mu continuer. loolu mënul ñàkk faaw loolu sart la yoo xam ne wàññiwul dara tey liggéey li gën ci liggéeyu fayu sax booy xool mm. jàng moo ci gën li Alxuraan li sun yonti boo xam salaay lay laam ne mm. xayrukum man ta'allama Alxuraan loolu mooy xasida mm-hmm. mm-hmm. waaw dama daan dégg ñu yi moom kenn mënu koo fay waaye nag loolu yànkati léegi daal du fay de dan lay mm-hmm. am noonu lay jox rek loo xam ne maanaam di nga ci mën a bàyyi ca kër ga dimbali ci njaboot gi loolu rek la waaye ak ñi nga àndal tam kenn ku ne borom kër la mënoo fanaan ay jàng xëy liggéey waaw sëñ Mamour ñu daal di gis ne tamit ndax yéen a ngi def ay tournée internationale comme ni ko yeneen jànkat yi defee wala. waaw tournée internationale man de def naa ay réew yu xaw a bari tuuti rek waaye itam yooyu yëpp itam xëy na te la fa yóbbu. Mm-hmm. waaye du tournée boo xam ne dana engagé wu comme fay la. Mm-hmm. nga def international loolu moom muy man xaadim ñëpp daanaka bi su néew ngay gis ñu lay woo. Mm-hmm. nga nga déplacé wu dem ca. loolu mu xañ na def nañ ko. waaye du du caaginu ko euh, comme ànd def kii bu dee sa dem tam sa jëmm rek lay doon. sa jëmm lay doon. waaw ñu daal di gis ne tamit yéen soppe dañoo gis ne yéen eh, jàn kuréel jànkat yi jànkat yi da ngeen a yor li nga xam si ne moo di daayray soppe yi daayray soppe yor ndax maanaam ci seen koñ rek la yem wala dafa wër tamit soppe ba tey. waaw daayray soppe yaatu na parce que man dem rek laa doon def fii ci Touba Darou Khoudoss fu ne la nit jugee ñëw ci ñëw ci ñii Dakar lañ déplacé taal seen oto ñii yeneen dëkk ay Saalum ak feneen ak feneen. Mhm. yoo xam ne ay kuréel lañ nan lay sopp ngir xasaay. Mhm. jël seen kaar ñëw. Mhm. li ngay def neex leen wala nga seq ñoom jàng. ba bëgg ma daal gis na tamit ba sànq laaj nañ la nee nga yaa ngi def ay olofal daal bëgg nga daal ñuy indil tamit ci yenn olofal yi ñu daal di xam. waaw ci wolofal yi comme jàng wolofal. waaw jàng wolofal bi rek. waaw loolu mun na nekk boo gisee wolofal yi may wax man yëpp day njariñ parce que Euh, say ki ko doon def maanaam euh, li muy wax. Mm. boo ko déggee di doomu adama parce que dem naan tuubal te rëccooti sa ndaw ngir dangaa defoon ak ndaw luy sax la boobee sax dangaa defoon. Mm-hmm. mu ne boobee dangaa boole woon man xam rafet ko la gis ngay daagu fàtte nii yu buur daf la ko yebe woon. Mm-hmm. buur yàlla moo boole man xam rafet te du deñ yow nag bul fàtte safaanu bi yi ma wax la la buur sose. Mm-hmm. doomu aadama lépp lu la yàlla jox rek da ko nanguwaat ci kanam. kon bu dee wolofal saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ci ab xelam tey rafetal yéenay xolom bu dee si kar xolam xalam saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yéenay xolom bu dee si kar xolam xalam jëneeru xol ba day rafet lu ñëw ci moom mu ne ba sànni ba am xolam bu set tànneefu góor ya day xalam xalam ci senn saagan sa jaamu at moo sellaloon ji wax la yonneen xam ne won kuulu yi balil xalam murit bu xam te xam luwul bul wax ne len na ko xamal lu dul xalam ci ay dogal ba ubbi ko xolom xalam siraat aku meloom moo ñu tabbi ci araam toroxlu ak tuuba karaam lay diine woo ak xalam xalam siraat aku meloom moo ñu tabbi ci araam toroxlu ak tuuba karaam lay diine woo xalam ku bëgg maanu dem fa ndar gis góor gu tooñ gu ceen ñëwër day tax mu sax ci li ko war ba ubbi ko bati xolom baatin xalam nga koy xame yàlla xalam nga koy gëme ku xalamul bu gëlëmee moo silmaxaal bati xolom fii laa jullee ci kay nabi ak ci sëriñ bi kay ubbee taalaay dagaan yàlla tabe ba buy xalam xolom si kar allah sëñ Mamour ci olofal yu am solo yooyu mais dañoo gis ne olofal coobar yi ak yëkkati xasida bi ku ne xam ne ne am na différence mais ndax jàppoo ne comme sama kalaas bi nga xamante daanaka xaw ñoo dégg yenn olofal yi euh, xasida yi la ñuy a mën a diglu daal ci olofal yi nga xamante ni moom nga koy def waaw xam nga olofal li ma la mm-hmm. lu jum ngir rasulillahi baatin ba saf xorom mm-hmm. bi bi sëñ Moussa bi ko contre ci wolofal dafa ne ku xam nii ma wax doo suuxlu woykat ba gotti ko mm-hmm. ndax lu jóg ngir rasulillahi baatin ba saf xorom moo tax ma wax la ci biir wax ne la suñ moo daa wax ne bu nu soree yonente bi te di wolof te mhm. sopp ko nan ko ci way mhm. ndax yoneen wolof yi ump ko yàlla bind xaraab bind xajam mhm. xamal looxe xaraab ak looxe xajam ngeen gi yoneen mooy lu loo jug loo wax version bañ ci jublu yàlla xamul làkk. xamul mhm. kàll xamul leneen loo wax lañ ci jublu ci lu baax yàlla fekk si ci loolu. Oh, na solo mais tamit dañoo seetlu ne yu bëri yoo xamante ni comme par exemple bu ñuy door door euh, du ñu du ñu am yenn comportement yi maanaam du ñu du xaw a yëkkati ko tuuti mais bu ñu xawee commencé am yenn kuréel yoo xamante ni topp na seen ginnaaw ñu ngi commencé siiw rek dañuy mel ni ku xaw a seen bopp tamit ñu koy tuub bu baax ak si ñu ko war a wax. waaw loolu man gisuma loolu loolu mhm. ndax nit ki waroo gis sa bopp ci li ngay def mhm. ndax xasida yi man man lu lu lu mën a doon tam man neex baat rek ma ci boole mhm. bindu ma ko defuma ci dara lu dul neex baat kon waruma ci woon nit ñu dul sëñ Tuubaa man loolu laa yëg man kon ban dénkaan nga am ci ñi nga xamante ne jàpp nga ne tamit ñi ngi koy def waaw dénkaan mooy li may wax sax su dama ko wax ci émission yu bëri wala ay ay kii yu may dajal ndaje yu bëri dama leen di wax ne leen na tudd am ñu la gën a kawe booy xool ñuy jékk seen alal ak leneen leen di la teral la nga xam di tax ñu defal la ko sëñ Tuubaa la bi la sëñ anhu dane woon tey jii bu ma xëyee ne bàyyi na sëñ Tuubaa sama mhm. satali gi moo waxal Moussa Bassirou mu doon ma ko mu lànk mhm. kon ne bu fekkee xasaay dee tax ñu lay teral di la di la di la defal lu ne mhm. kon wóoroo ci wane sa bopp wane goo xam ne wane ne dara nga ci te fekk dootu dara ndax yàgg-yàgg li ngay def di nga di nga ko bàyyi ñenn di ko def ndax mag ñi fi jaare ñëpp ànd ñu dem nan waa yenn projet nga dëdmal ci li nga xamante ni ci nga yëngatu muy wàllu xasida yi waaw projet yu bëri parce que buñ sañan tam liggéey bi gën a gën a gën a yaatu maanaam yi nga xam ne maanaam missionnaire yi nga xam ne sëñ bi moo tànn ko mhm. liggéey yi ñu ko a yaatal mbindum sëñ Tuubaa ndax mhm. ah, booy xool ci àdduna bi am na ci loo xam ne lu bari ba daa des maam mhm. yoon yi fa war a àgg lu bari des na te na nga xam ne xasaayit nag dafa mën a yóbbu lu bari fu bari yoon bi ndax am na ci ñoo xam ne tey bu ñu déggee nga wax xasaay rek dañu mhm. gëstu kan moo wax lii mhm. te dèjà nga gis ñoo xamante ni sax dañ ciy yëngatu mais niveau bi dëgg-dëgg ak euh, li nga xamante ni mooy cër bi ñu ko war a jox dëgg-dëgg sax duñ ko xam waaw loolu nag dafa dafa bari na ci la mhm. ndax loo gis mu dem rek am na brax loo gis muy dem ci àdduna am na brax li ma la wax ne la am na ñoo xam ne xamuñu leneen tax a jug waaye bu dee suñu classe gi nga xam ne xam na ñu tax a jug ak àdduna lu mu mën a demee ñun duñu soppi dañuy daal di gis na tamit sëñ Mamour yéen jànkat xasida yi da ngeen di taxawal ay bis yu mag bis yoo xam ne si ne defe naa bu ma ju bërki démb rek laa dégg ñu naan sa bis jàll na bis yooyu ndax ñi ngi leen ciy jàppale jàppale gum waree comme ni ñu koy defee ñeneen ñi nga xam jànguñu xasida waaw bis yooyu daanaka ñi la ci jàppale nag mooy mooy mooy taalibi sëñ Tuubaa yi li sañ bi xam ne ku ku defal jàngkat bu ëllëgee am fay la sant am nañu gis loolu mhm. am na ñu yëg loolu ndax mas na ko def njaareem moo xam ne am na ku may sama jàngkat yi mhm. Cheikh Issa dem ay t-shirt ñu niroole ko mhm. ci guddi alxames ñuy jàng sëñ bi nettal ne ana ñi ñum ñu ne ko sa jàngkat mu ne ana ko leen melal nii ñu wax ko ne ko Cheikh Issa la ko bu ñëw mën koo wax ma li nga ci defal ma delloo la ko Mm-hmm. Cheikh Issa ne ko Mbàkke def naa ko addi ba mu ko waxee ba mu ñetti yoon mu ne ko mm-hmm. nangam mu delloo ko loolu ne ko feeg maa fi mm-hmm. ku leen di defal na ma wax ma def ko bu ma képp ku leen defal bu ëllëgee naa la fay waaw sëñ Mamour ba tey ñuy laaj tamit ndax mas nga jàng ci bi eh, ci biir baas ba gis ko xam se ne jox na la àddee ji kaw njort ndax jàngum xas dañoo la waaw wallaahi eh, miraaral sax jàng naa ba tey nit defal la maanaam waxuma dara sax yëkkati soxna sax may la ko nga xam ne boo nangu woon. loolu de lu rëy la moom sëñ bi moom ci njàngu xas de. wallaahi jàng naa ba tàyyi nit yëkkati soxna pour may ma maanaam jàng naa tam. Mhm. nit yëkkati ci baas. maanaam ñeent fukki guddi sax la woon. Mhm. nit yëkkati ci baas bi un jox ko. ndeysaan macha allah. seen soxna soo xam ne fi ma toog di jàng. Mhm. Ah, loolu de moom dafa nekk loo xamante ni li nga waxoon sànq dafay confirmer ne xasida yi moom doon na loo xamante ni ku ci yëngu rek ci xasida yi ah, mhm. ma leen di defal moom du ma ko def ci wut duñ ko xam par rapport ak ñi nga xamante ni ñoo ci yëngu xasida dafa boole xibaadaat yëpp boo jàng xasaay yaa ngi def lépp yàllante ko nag nga xam ni nga yor moo tax chaque jour damay wax xale yi ñuy xam li ñu yor maanaam du caagu da ngay dem topp nit yi àdduna yi wala yeneen yéen di fa yëkkati wala ci kilifa yi taxaw ci bunt yi di na jàngkat da nga ne naa ci soobu nga soobu ci waaw kay jeex na ñu bari loolu moo leen ci ci dugal man nga am loola waaye képp koo xam ne pas-pas bi la ci dugal mooy Sëñ Tuubaa rek mhm. ndax ba ngay tàmbali njëlbeen gi day sew mhm. amul kenn ku la ciy bëgg wala mhm. ba mbooloo mu bëri ak lu a doon delsiwaatal ak ba ngay tàmbali yemale ko ndax nga sa diggante ak ko te am ñoo ci dan laxas wala yenn daal a xam ne boole ko métier moo gën parce que li ma wax sànq xasaay maanaam lu kartan di def. rawatina jàng dafa métti. Mhm. carrière bi guddul. Mhm. mën nga ci def ay vingt ans vingt trente ans wala nangam. Mhm. mais ci kanam tuuti. day jeex. Mm-hmm. waaw léegi li ma gis tamit mooy ñaare saa su ne yéen yi di ngeen di faral di fanaan baas ndax faral ba fanaan baas ba suba nga xëy delluwaat ci sa liggéey ñoom ñoom ñaar ànd nañ pour ànd gi daal jafewut ci yéen. waaw ànd gi am na parce que léeg-léeg tam du chaque jour ngay jàngi léeg-léeg dina def doo du jàngi nga wut leneen looy jàpp liggéey moom yaatu na. mun nga mm-hmm. def façon liggéey bu ne. Mm-hmm. mun nga yar mun nga def leneen. mun nga di liggéey di jënd di jaay ci loo xam ne téléphone mën na ko li nga wax sànq rek nga xamante ne yow nee nga mën nga ne say sa waajuroo ñoom ñoo moo leen daan boole ak ay yéen yoo xamante ne ay dongo lañ di leen jàngaloo bi alxamis yeeg mel noonu am ci ñoo xamante ni mën nga ne ñoom commencement bi njëkkewuñ jàng dañoo am seen métier ba yàgg ci gis jàng tamit mu neex la ñu sóobu ci waaw ah, loolu am na parce que uh-huh. ñun ñëpp jaar nañ ci métier uh-huh. man jaar ci métier nekk naa Dakar di liggéey uh-huh. jaay matière yi Euh, jaar jaar naa ci métier. Uh-huh. léegi dem ba jëmmi jamono. Uh-huh. moo moo moyetu la loola. Uh-huh. mais teewul ngu see rek wala yeneen teewul tam da ngay am na ay tool. di bay wut ay xale teg leen fa. nga am samay njaboot ak góor ah, ci comme di nga àndi woon ak Khadim bëgg na maa xam tamit ci diir ci diir bu gàtt daal kat ñaata kii nga ko toog ñaata at. waaw Khadim bokk naa ñi ko gën a ëpp lu moom wala lu lu lu lu ndax li ma ànd moom. dafa yàgg. maanaam jiitu ñuy xam xaadim géey damay ànd ak moom mm-hmm. bi mu demee ba ràññeeku tam bokk naa ci ñi nga xam ne ci kuréel gi nga xam ne ku mel ni man ay sëñ xaarim kebe sëñ Seexuna ak sëñ Bàcc mm-hmm. ñoo ñu ngay yëpp ñun ñoo ñooñu ñëpp am na ñoo xam ne bàyyi nan bàyyi ma fa man ma mm-hmm. continuer kuréel gi daanaka génération bii koy awu nii sax ñi ñëpp ñi ci ñi fa ñëw man maa leen fi indi waa léegi tamit ba nga ko toppee da jékki-jékki yow ber sa yoonu bopp wala da ngaa bàyyi ba xaadim ne la mën nga jàng. dama toog nga loolu moom jot jot gi day dem ba àdduna képp koo xam ne leen naan weexit xaw ma weexi tànk xaw ma weexi nan taxul ndongoy dem daara. Mm-hmm. maanaam yow miy jàngi. Mm-hmm. boo sañoon da ngay mokkal ber sa daara. Mm-hmm. loolu rek la woon bu ngeen di ànd. da ngay dem ba jëmmi jamono moom mu xam ne ne ay nit a ngi lay soxla wala fu mu mënta dem mu yebal la fa mhm. ñooñu di ko sant bu ëllëgee ñooñu ne ko jëru soxla ñu lay woo maam mu mhm. mhm. muy jàngi ngay jàngi loolu mooy tax mu dem ba xam ne xam na ne lii bu bëggee continuer dem mënul nekk parce que am na ñu la soxla jërëjëf sëñ Mamour xam naa liñ amoon ci waxtu mel na ni jeex na xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo donte nag di nga dëjë jotaay bi ak xasida mais nga ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw ñu ngi leen di sant bu baax eh, ci ci liggéey bi di leen ñaanal tam eh, lii nii mel na ni am na solo. Mhm. li ngeen ci yéene yàlla leen ko yàlla defal. ci barke weeru màgg wi. Mhm. Ah, barke xasile sëñ Tuubaa yi. Mhm. parce que lu am solo la. te site bi yàlla na dem ba àdduna bépp di ko suivre. ngeen dem ba am ay télévision yoo xam ne àdduna bépp ñu ko yàlla defal. layal mu am itam mu tàggatoo. waaw jërëjëf damay sant sëñ Mamour Kairé mi ndax yombal la nañu invitation bu baax ndax defe naa ne bi ma ko waxee nag yàggul dara sax mu daal ñu koy nangulal mu yombul ni kon nag loolu dañ la ci sant bu baax di la ci gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ci suñu émission bi nga xam ne moo di jotaayu xasida yi di wax ne nii rek lay demee saa su ne ak jànkati xasida yi ba ni weer koor bi tàmbalee ba na ngeen xam ne si ne rek lépp daal fas yéene ànd ak yéen rek ci dundal xas day mm. ñu daal di tàggatoo noon rek daal di jox dig daje ci beneen émission jotaayu koor jërë ngeen jëf ah, Fatou mu nekkoon seen émission jotaayu koor yi nga xamante ne dañ ci dalal jànkatu xasida yi ak tàggkati yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di sant El Hadj Ousseynou Ndiaye Seexuna mi nekk ci caméra bi Moussa Khady Niang bi nga xamante ne mooy jàpp ci montage bi suñu gan tey nekkoon Serigne Mamour Kayra xam naa ñu bàyyi la nga tëjee xasida yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim hamdi wa sukri liman kulli bi zara له ردا دون سوء هند سرسارا حمدي وسكري لمن كل بزارا له ردا دون سوء هند سرسارا لو وسناء ورضوان من ثقة مصاد لي من بني ديمان أنسارا لله كل لدى عباد مكرمة من هر عجام من سار لله كل لدى أبار مكرمات من أرتال النوافي عجام من سار إن الذين إلى سرسار خد خسدوا سيارتي فراخ دارين أو سارة إن الذين إلى سرسار خوات خسادو سيارتي فراخ دارين أو سارة subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin